sëriñ Fadilou sil euh, ubbi na kàddu gi sakku ci ñun ñu tënk ay kàddu ci soxna maam Awa Bousso waajur Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacké fàttali ci ay jaar-jaaram ay jikkoom ay melokaanam ab liggéeyam bu sell ngir jàpp naa ne jataay bi am na ay góor waaye ay soxna yu bari ñu ngi fi yoo xam ne toll nañ ci liggéey wammat ay njaboot andi leen fi kon ñu fàttali leen suñu maam ju baax jooju ñu jëlee ci moom ay bind roye ci moom ay jikko dana nekk ab yóbbal kon Cheikh Mamadou Fadel tomb bi nga ubbi bu am solo la soxna aw buso euh, doom yi soxna mati ñang la euh, ak sëriñ bu sóobe teel a wattu alquran mokkal ko mokkal gu rafet jàng xam-xam ba am niveau bu kawe ci njàng lii tegtale niveau bu kawe bi mu am ci njàng dañoo wax ne sëriñ bi amoon na euh, loo xam ne mook digganteem ak boromam ñoo ko siñante woon ci ay xeeti natt ci lum doon fàggu ci moom looloo xëy na mën na koo jural ay natt muy lu mel ne tawati yaram àggoon na ci diis ak àgg foo xam ne fu kawe kawe la ba serigne bi yëkkati xalimaam bind qasida bo xamne ne ci doon sakku suñu borom musafara ko ci loolu nga xamne ne ci coobaram la ko tege muy matlabu di qasida bo xamne ne bi daale na ci képp ko xamne ne am nga ak jaaxla ci sa walu yaram nga diko ko suba ak ngon di ko yéene ci sa xol suñu borom safara la soo ko mënta jàng nga wut ku la doy mu di la ko jàngal donte da koy ëf ci kaasu ndox sax nga di ko naan loolu ak saafara gu rëy da ci yàlla def xasida googu bi ko sëriñ bi taalif dañoo wax ne àgg na ci mettitu yaram foo xam ne jàppandiw ko woon mu toog di bind waaye soxna aw bu sa woo mu yor këyit ak xalima mu di ko imla li ñuy wax imla ci arab imla dañ lay wax benn baat nga bind ko te na ko war a bind dara du ci soppiku daf ko woo rek di ko dicté euh, xaside gi sëriñ bi moo ko way ci xelam misaaniye bi arut beeg balaaxa beeg li ci war aju lépp sëriñ bi daat koy togg ci xelam ba mu ñor mu di ko wax ci aw làmmiñam soxna awa busa di ko yaxal xamdan li munzili dana waddaa'i wa munzili shifaa'i waddawaa'i man amara al ibada bidduaa'i li yadfau bihi an il balaa'i nga xam ne da ko jox par par bayit muy bind ba xasida gi àgg loolu ku egg ci niw bu kawe moo ko man loolu ku jàngantu njàng mu ndaw mënoo ko kon loolu mooy tegtale kawe xam-xamam waaye waxuma la xam-xamam bu rafet waaye bi ko yàlla booleeg suñu sëriñ dafa bokk ci murida saadiqa yi nga xam ne dañoo jaayanteeg sëriñ bi seen bokk gi li muy jege-jege ak li ñuy jege-jege sëriñ bi bokk ci ay ñoñam dañoo amoon pas-pasub nekk taalibe ci sëriñ bi di ko féete fépp fu ko ab taalibe féete di ko liggéeyal liggéey yu metti di ko muñal di sàkku ci moom barke gëm ko lool te loolu firnde ji mooy bi ñuy nekk daaru salaam boobu ay xat-xat amoon na njëkk ñu ñëw daaru salaam ñu sañ ci daaru salaam tuddee ko jàmm gën jàmm gën ngir ay xat-xat yu bari kon kenn ku ne xam na ne ak metit amoon na ñu nekk fi ab diir ba yàlla dogal sëriñ bi wàcce ñim fi nekkaloon bi mu sañcee Tuuba jël dëkk bi rafaatale ko soxna Anta Njaay Mbàkke ngir ab liggéeyam bu sell ci kër sëñ Mbàkke moo daan waaye digganteem ak sëriñ Tuuba waaye ngir teg ko ci loxo yi doomam ju baax ji nga xam ne mooy seex Sidiyal Muxtaar muy maam si Anta moo njëkk a seex ci yoonu murit njëkk am ab dëkk njëkk a am e, kilifteefug mbooloo muy wuyoo saw tur di xëy ci say waaw di ci gont te jaare ci Serigne Touba mooy ki ko njëkk am ci yoon wi te loola booba soxna aw bu sa mi ngi fii mook soxna amintaloo sëriñ bi sanc Touba 1888 ñu bàyyi dëkk bi ci loxo yi maam Cheikh Anta euh, mu nekk fi ak soxna su tedd soosu ñu leen tuddoon léegi te nga xam ne moom itam ay bind yu bare bare lañ mën a jël ci moom soxna maam Anta Ndiaye soxna aw busu nekkoon ku ñeme coono ndax ci tuubaa ja Touba ju njëkk ja lu metti woon la foofu ñu dëkk tey mu tugg mu duddoon Touba te jumaa ji nekk fi mooy kër gi nga xam ne mu nekkoon kër sëriñ bi foofu wax nañ ne am na waxtu yoo xam ne amoon na bool bu ñu tuddee boolub ña ngir maanaam lenn ci ñi gën a jege sëriñ bi sëñ Mouhamadou Mamoun yaakaar naa ci la bakkoon ak ku mel ne Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne ay njabooti sëriñ bi lañ àggoon nañ ci waxtu woo xam ne jëfandiku ñam day jafe lool waaye am na bool boo xam ne suñ koy xasee teg waxtu wañ koy tege mën naa am suba lay doonaat te buñ ko tegee ci kanam sëriñ bi day leen di woon ne ko Mouhamadul Moustapha tibbal mu tibbu xëy na benn wala ñaar mu ne ko baax na Mouhamadul Fadil Mouhamadul Maamoun noonu la ñu koy defee ba kenn ku ne am ci ñaar tibb la ñett mu leen baax na ba subati kenn ku ne xam na ne loolu lu metti metti la te booba wax nañ ne soxna aw buso daana yor yére sëriñ bi bëgg koo setal lu tolloog ak siyaan gu nekk diggante Tuuba ak Mbàkke daanaka doo ko gis nga xam ne dana seq ay jéego dox ba agsi fu sore fu tolloog Tuuba ba agsi Daaru Salaam wala Mbàkke waaye li li wër Tuuba ay jamono mën ngaa wër lu mel ne am ndox doo ko gis yooyu yëpp coono yëpp daj nañ ko ngir liggéeyal sëriñ bi ngir fàggul seeni njaboot ëllëg ju baax ju barkeel moo soxna Aminta ñu nekk fa daj fa lépp lu metti lu nañu daj ko fa wax nañ ne sax daanañ àgg ci ay jamono yoo xam ne teraanga yuñ xéewloo dana jafe lool ba léeg-léegi wax nañ ne ku mel ne sëriñ bu suube euh, léeg-léegi mu yónnee fa dara xëy na ab saako baraay lay doon wala xeeti jëfandiku yi nga xam ne jamono yooya maanaam du sorek loolu waaye loolu sax bu ñëwee maanaam du tax mu mën a yaatu genn yaatu gi waaye yooyu yëpp ñoom ñu toog fa di muñ ñu toog fa di muñ toog fa daj fa lu nekk yor sa njaboot di liggéey guddi ak bëccëg ba noppi xéewal gu ñu war a jëfandikoo jafe lool te nga nangu ko muñ ci sa wet di bàyyi ko fu ne te bokkuñ fuñ jóge ay kajoor ak penkook sowook gànnaar ak fu ne ay nit di jóge loolu kenn ku ne xam na ne ak jikko yu wuute yi ak jafe-jafey jamono nga boole ko lépp di ko muñ te kenn ku ne xam na ne sëriñ bi yàgg naa doon nitu tiraanga mën naa am ay gan yu jóge fenn sax addi yi ñëw fa mën naa doon ay ab gàtt wala leneen tiraanga joo xam ne juñ mën a xéewloo la sëriñ bi defar la ko ngir waajale ko ay gan te yooyu yëpp teewul kër yu mag yi lu mel noonu danaa am daa lañ la woo jox la dara nga yëwénal ko bam bam mën a bas man koo yéwénoo nga boole lépp indi ci kilifa mu dugal ko ci keesam ay gen ñëw xeewloo ko daal di dem doo ca teg loxo sa jaboot di ca teg loxo te loolu du la metti te bu ëllëgee mën nañ la ko santaat xeeti jikko yooyu nag yooyu yëpp warees na ko jàngat xam ne mag ñi ñu jiitu woon laata ñoo am li ñu am nii dañoo jaar fu méttee metti muñ yu métti daj lu nekk ngir liggéeyal sëriñ bi door a am liñ am loolu moo tax ginnaaw bi sëriñ bi demee ci tukki bi ba ñëw soxna aw buso ca ja bokkoon na ci ñi sëriñ bi tànnoon féetale ko lépp lu jëm ci kër gi waaw lépp lu jëm ci kër gi rek soxna awa moo ci daa def di ci dindi maanaam di ci taxawu taxawaay bu mat sëriñ bi doyloo ko woon ci yu bari ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi soppil ne ko nekkuk njaareem daf koo yabal tuubaa yabal ko tuubaa euh, mu nekk fi di jaam yàlla mën a faj lool ku xamoon xeeti faj la ndax euh, ginnaaw bi fi sëñ bi bàyyi koo mu nekk ak cheikh mahamadul fadil mbakke fii ci Touba eh, njëkk loolu sëriñ bi daana am dongo bu tawat boo xam ne day àgg ci wéradi gu metti waaye soxna wa xeeti ay yu ñu def ngir ku am dog-dog wala ku jeex wala ku amug wéradi gu taa wér yooyu yëpp yàlla da ko cee mayoon moo ñu wax sëñ Masamba fati Buso sëñ Masamba Faati ma doomi sëriñ bu sóobee waaye moom itam yàlla def koo mayoon ci anam googu nga xam ne kon loolu sëriñ bi moo ko defoon ci ñoom